aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi mbokk yi nga xam ne ñooñu baaxoo di eh, bàyyi xel waxtu jot ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru wolof wu ne ñoo ngi waat fii ci mm, ni ma ko waxee woon léegi ci buntu sow bi nga xam ne moo jàkkaarloog tëli alaaji Babacar Kébé Ndiouga ànd ak commission bi nga xam ne ñooy séntu lu jëm ci wàllu weer wi ci njiitu sëñ Moudou Mamoun Bousso waaye sëriñ Abdou Diop imam mi nga xam ne moo yore kaddu gi ak waa daayira Muxaddamatul Xidma waaye di jokkoo ak sëriñ Bachirou Mbacke mu sëriñ Abdou Khoudous mi nga xam ne moo ñuy lëkkale ak suñu bokk yu nekk Tiwaawan waaye di ko ànd itam ak sëriñ Modou Mbacke si mi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu euh, représentant yi ne ci région yi bi yàlla dogal nag ni ñu ko baaxoo def saa yu ñu noddee timis ba julli ba noppi sëñ Abdou Diop dana wax ci rajo Jumaa ji ne sëriñ bi ne nañu séntu weer wi te lu ci waaye xam nga ñëw yëgle ko bu ñu séntoo it lépp loo xamante ne bii jëlee nañ ko ci dañuy jokkoowaat ak sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha leeral ko loolu léegi nag euh, kaddu gi mi ngi ci sëriñ Abdou Diop ngir mu leeral leen li nga xam ne fi la commission bi toll ci wàllu séntu weer wi tey jii yemoo ak alxemes di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru euh, octobre dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru wolof euh, sëñ Abdou. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ko sëriñ fallu Galas si la waxee rek. muy ni ñu ko baaxoo def def nañ ko muy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yu ne ci weer wu ne sëñ bi dañu jabal ci jumaa ji ñu yéene fi wax ne nañ séentu weer wi te lu ci waaye xam nga ñëw yëgle ko bi biñ ko defee nag génn toog ci sowu di séentu weer wi yàlla dogal na nag jokkoon bëri yu bari jokkoon nañoo ñun wax ne gis nañ ko fa nun suñ jëmmi boppit nun ñi fi ñi ñi koy séentu fii ñëpp ñun gis nañ ko ban defee noonu lañ daal di jokkoo ak sëriñ bi sëriñ Mouhamadou taxa yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko mu ba mu ba yëgal ko ko kon mu ne mu joxe ndigal ci wane ne kon suba nañ xam ne suuba ci alxames ji mooy benn fanu rak rak rakki gàmmo ji nga xam ko ñu xam ne léegi gàmmo gi moom jeex na tey nga xam ne suba mooy benn fanu rakki gàmmo da nga ñëpp xam da nga ñaan sëñ bi nag mu yàgg fi lool ba li mu yéene ci yoon wi lépp maagale ko asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Euh, mbokk yi ñoo ko jot a déggandoo euh, tey jii ci alxames di ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre ci la weeru wolof wi euh, mat. suba ci alxemes ji ci ajuma ji dëppoo ak suba ci alxemes ji dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent juróom ñaar ci weeru octobre tey jii la àllarba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre ci la weeru gàmmu bi mat suba la ñaar fukki fan ak juróom-ñaar di alxemes ci weeru octobre mooy doon benn fan ci weeru rakki gàmmu li nga xam ne mooy ndigal li bàyyi ko ci Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha waaye jaare ci commission bi nga xam ne ñooy séntu weer wi ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.